mbokki ñiy si ci Jàllale TV dalleen nag jàmm njiite réew mi Bassirou Diomaye fay daal dina wutali woon niki tey foofee ca Touba amal akub daxub nemmeeku seeti ki nga xamante ne ni moo di xalif général des Mourides ci boobu boobule tase nag moom xalif bi daal dina jébbal ay cadeau yu rafet njiite réew mi di Bassirou Diomaye fay Bassirou nag moom njiite réew mi mi ngi demoon foofee ca résidence bu xalif général des Mourides nekk foofee ca Daaru Minam moom nag xalif bi mu ngi ko daal di jébbal ay cadeau bokk na ci akub naat maanaam sijaada bu rafet rafet yamu ca jébbal na ko akub chapelet maanaam kurus boo xam ne ñu ngi ko defaree xaalis mu yaanju lool waaye itam jébbal ko li nga xamante ne ni moo di kaamil boobu la nemmeeku njiite réew mi niki tay la ko amal ñu ko doon xaarandi ci altine gi waaye nag matal na ko mu nekk nag akub visite bu njëkk mu daal di amal foofee ca Touba ginnaaw rek bañ ko daal di tabbee njiitu réew loolee nag mu doon ay mbir yu rafet yoo xamante ne ni jot na ko am ci xalif général ba ci ndaje ju am solo soosee mbokk ñi teewlu si Jallale TV fi la ñuy taxawaan dégg yéen jaajëfal leen bu baax si teewlu bi.